ku ne xam na ni combat général du yomb te nag buur dinaa la dolli leen ci làmb ji bu làmb ji yàqoo ñun mbër yee ko yàq de li tax mooy mbër mu ci nekk dangay toog sa ruq di xool koo mën a daan te loolu bokkul ci liy jëmal làmb kanam làmb dañoo war a xool làmb njardeem yi xool xale bu njëkk ba amateur yi daan taxawal combat mais léegi grand frère yi da ngay am sa benn grand bu nekk sa ginnaaw xaritoog promoteur bi di am yu muy dund ak moom soxla combat ne ko sama booy laa bëgg nga tëggal ma kooku nag di la tëggal danaan booy bi may tëggal sama booy la te bëgguma mu daanu léegi dañ lay xoolal koo mën a daan moo tax des fois souvent mu dal ñenn ñi nga ut lu nooy ba yaakaar ni lu nooy la nga ñëw mu demee neneen yàlla nattu la te yooyu day am nañ bàyyi ñun ñu bëri suñu biir te namoon naa tamit suma papa ndax moo daan boole xale di tëgg ay kalaaf moment bi champion yu ñu fiy coow ñu ne ñëw te làmb ji ñoom ñëpp jaar ci kalaaf ay ñoom Modou Lo Balla te loolu amatul ndax booy dañoo bëgg lu yomb di uti lu nooy moo tax nag xoolal booy dinañ yéex a ci kaw comme ñenn ñooñu noonu di ut lu nooy ndax saa bu ñu la joxee ki nga xam ne sa morom la rek ba nga war a wane sa bopp looloo lay gaañ te làmb warul mën a doxee noonu ndax xëy na dañ daan toll foo xam ne dañ daan bëgg combat adversaire bu ñu ne général nga ne noo day xeex day nangam ñu daan mun daan jaral ñuy daje stade di dëkkante affaire yooyu mais xam nañ ni léegi affaire yi du loolu noonu ndax dëkkante moom baax la rek di xeex ak yooyu noonu ñun ñun dépassé nañ yooyu quoi vraiment léegi fi ñu toll mooy dimanche jot ñu takk suñuy bagage dem bëri ci. dafa am xaalis. non macha allah am na xaalis mais am na compétition da ngay am compétir da nga ci am compétir da nga ci yokk sa xam-xam te mbir boo ci nekkee saa ne di ci yokk xam-xam rek loolu ak yokkute la ndax nee nañ olof nee na ku yokkul yaa wàññi. ku ne mbëru bëre dóor nga toog fi nga toog mën naa mbot mën naa cabaxal rek toog fa yaakaar ne mooy làmb des fois nga dajak mbër moo xam ne mbot ak cabaxal du ko daan de pour yaakaar na saison ren bi fi ma ci demul bëre dañ koy xoolaat fépp foo dégg ñu fay wax làmb dem naa fa bëre mbuur ñaari làmb yi fa mag yi fa njëkk am maa ko jël Kaolack làmb yu mag yi fa gën a am 3 millions yi maa ko jël Fatick moom waxaalewu ma ko dem Diofior wër àll bi dem Passy dix jakarta yi ngeen fa doon dégg mooy mise bu fa gën a mag maa ko jël tournoi yi fa yi fi gën a mag ren yëpp Sénégal maa ko jël loolu nag ak cant la ndax mën naa ni démb laa dugg ci lutte sans frappe ba ma ci duggee yàggul kon bu demee ba suñu borom suturaal ma ba ñu nomee ma meilleur lutteur loolu ak cant la mais nag jàpp naa ne defaguma dara ndax xale la waa Malika nekk sama ginnaaw maam lu ma teg sama bët xëy na lii luñ ma nomee la rek mais taxul tamit ma gis ci benn succès wala dara. da ngeen maa fekk ma jóge entraînement nii géej laa jóge sànq nii di soog a ñëw. lutte simple maanaam lu mënta ñàkk la ci mbër mi ndax ku ne xam na ni léegi làmb ni muy doxee mooy loolu noonu bu doon bu doon bu doon maanaam luy dox dañ naan day raam ndax bëre dóor bi doxul à 100 pour cent boo bëggee dégg-dëgg ndax sponsor yi amatu fi. te tamit promoteur yi mooy loolu noonu da ngay reeba tas man mën naa ne sama première année bi ma bëree saison bi quatre combats laa ko bëree bu demee ba chaque saison may bëree deux wala benn kon déjà affaire yi mooy lool noonu moo tax tamit may entraîner chaque jour matin soir ma jàpp ni benn fan bu ma toog bëree mu ko pertement la